أجا قلبي من خيال قد سرى قد سرى قد سرى وسباني قد جفا طيف الكرى أجا قلبي من خيال قد سرى asalaamaaleykum wa rahmatullahi taalaa wa barakaatu mbokku euh, internet yu Amsa TV ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax di leen ziar di leen sargal di leen ñaanal jàmm waaye tamit di ko sàkku si yéen comme nu nu ko baaxoo di defee rek saa su ne dañu fiy dalal kilifa gi Serigne Mouhamadou Moustapha Dieye ci xam-xam bi waaye tam ci yar bi. Mhm. tey nag nekk bis bi spécial di bisu Nabi. Mhm. xam naa tey suñu waxtaan foofu lañ koy accentuer kilifa gi ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziar di la bàyyi nga nuyoo teg soppey. salaamaaleykum. wa rahmatullahi wa sant yàlla rekk julli ci yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam sant waajur yi ak di leen ñaanal. yàlla yërëm leen xare leen aljanna. yaatal seeni bàmmeel yokk seeni leer. te woyefal suuf si seen kaw. di ñaanal ñi tëdd ci hôpital te tawat. ci barke weer wi. ci barke guddi gàmm gi. ci barke borom guddi gàmm gi. di sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla na yàlla fëgg seeni cër mm-hmm. di ko ñaanal ñi ne ci xat-xat mm-hmm. moo xam ñenu fa ña caabi féete gannaaw mm-hmm. ak ñi nga xam ni demunu fa tamel ni ñoŋo fa ngir fitna ngir coona ngir jaxasoo àdduna ba xalaatanu bëgg dara seen dund yàlla na leen yàlla xettali te delloo si leen ci jàmm ak ci sutura te teg ci xalaat seetu mustaqim di ñaan jàmm ci réew mi jàmm ci àdduna bi yàlla na ko fi yàlla def. amiin gàmm gi yàlla bu mu doon sunu mu gàmm. amiin di wax salaamaaleykum wa rahmatullah sëñ Ibou. waaleykum salaam wa rahmatullah euh, sëriñ Moustapha euh, sëriñ ñu ñëw fii biir Paal fekk la fi. Mhm. Euh, ci gàmm gi ban yëg-yëg nga ci am. waaw kontaan. Mhm. sant yàlla. Mhm. ak di ñaanal waajur ndax nit sax. dana am fu muy cosaanoo bàyyeekoo fa mhm. waaye du bëgg kenn fekk ko fa waaye nag mhm. nit it dana am fu muy cosaanoo mhm. nekk fa bu sañoon ñépp fekk ko fa la koy waral nag mooy bañ wàcc yoon win la teg ndax gisatunu sunuy kilifa yi nga xam ni mooy sunuy ndey ak sunuy baay waaye ñàkk ñàkkunu fi ndey ak bàyyi ndaxte rakki ndey ngi fi rakki bàyyi ngi fi. Mhm. ak fu nu mënti ne bu nu néewoon ba Burkina Faso it. Mhm. dañu leen di jàppe ndey ak bàyyi. Mhm. te boo ko xasee ba am rek. yaa nga ci li nga war a nekk. nga fi ngeen fekk nu paal. di dëkk boo xam ni. armeel yaa ngi fi sorewut maam Cheikh Seydil Hadji Malick moo ko rëdd. Hmm. si. <laughs> moo ko rëdd. Mhm. neen fekk nu fi ci gàmmu. Mhm. gàmmu taxit ngeen ñëw fi. Mhm. gàmmu taxit ñun nu ne fi. ba mu jaral nu lu ne. waaye su dee dëgg rek la ñuy yëg-yëgu sant yàlla gu rëy lan ci am. ci bis bi. ci weer wi. ba ci waxtu win koy defee mhm. ndax koy xeeb waxtu di xeeb seconde rek mhm. laajo borom bopp ba cay mayi mayi mhm. ak borom biir ba cay daw ak ka ca war a wuyu ci convocation kon waxtu am na solo rawatina kay war a wéer te amu ko kon yàlla na nu yàlla defal sutura waaye lu dul kontaan la nu am ci fekk si gi macha allah kontaan la ñu am ñu itam ci fekk si la fii nii di paal di dëkk sunu maam rawaan ngom waaye dama laa dégg sànq rek ci sa biir wax nga ne Seydil Hadji Malick moom moo xam ne moom moo di armeer yu paal yi diggante Seydil Hadji Malick ak Mame Rawane Ngom ba ci dem doon dégg ñu naan moo doon nee na boo jigee boori tuyaawan mhm. bu romb tuyaawan di dem paal waaye itam mhm. boo jigee booru ndar bu romb bu romb paal di dem di dem gàmmu ji tuyaawan mhm. sëriñ bi relation wu Maodo ak ak nga xamante ne moom moo di Mame Rawane Ngom boo ñu si moon baaxee tuuti balaa ñuy ñëw ci illay gàmmu gi waaw mburu këf ka fëriñ la maam Seydi Hadji Rawane bi muy dem ci maam Seydi Hadji Malick jàng na fànni xam-xam yu bare dëgg la waaye yàlla la seen ci maam Cheikh Seydil Hadji Malick ci ragal yàlla mhm. ci tedd ga mhm. ci màgg ga mhm. ci doon bañ laal soow moo xam ni ngir day xalaat jur gi day ruuram déet <laughs> maam Cheikh Seydil Hadji Rawhan loolu la doon seet ci maam seex Seydil xaaji Malick demu fa woon nag ngir lu neex ci ab ba bakkanam dëgg la mu ormaalit lépp lu sant si ci àdduna mm-hmm. ba dencu ci soxna mm-hmm. mu wormaal lépp lu sant si ci àdduna mm-hmm. ba téere bu mu bind waxi na ko suul ngir maam Seex Seydil Haaji Maalik bu dee gëm gu foor waaye it maam Seex Seydil Haaji Maalik delloo ko njukkal ndax moo ni rawaan moo ko wax de <laughs> maam Cheikh Sidil Hadji Rawaan mhm. fii la ne ci paal mhm. liggéey fi lu rëy mhm. mook maam seex Sidil xaaji Malick daan nanu fi nekk ci diggante sanc ali ngom ak fii ci paal dëgg hmm. xam nga lu tax nu boole leen ci waxtaan wi gàmmu fii ci Sénégal ak fii ci réew mi ci ñoom la jóge dëgg la hmm. gàmmu yàgg na di am rekk ngay wax pour nga bañ a juum dëgg la ndax mhm. Sénégal rekk sopp nu Seydunaa Muhammad waaye ci mu leer ci boppi nit ñi mhm. ñu ko daan def ci sanc aali ngom mhm. baa ci diggante sanc aali ngom paal nu bañ ci juum sëriñ bi maam Seex Seydil Haaji Malick ak maam Seex Seydil Haaji Rawxaan nuy seddoo kaamil bi kii di jàng xaaju suuf kii di jàng xaaju kaw <laughs> maam Seex Seydil Haaji Rawxaan mësul gëm lu dul maam Seex Seydil Haaji Malick waaye ci gëm-gëm goo xam ni la waaye cër boobu ngay gis da ko delloo ba mu doy sëkk gàmmulu nu woon it bopp bis bu ne dama koy wax dëgg la gàmmulu nu woon seeni waajur yi gàmmulu nu woon seeni njaboot guddig yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam lanu doon gàmmul mu doon cosaan nag moo waral paal tëbul tëb rek di gàmm dafa am fu mu jóge ci cër mm-hmm. ci lu doylu mm-hmm. ci ndigal gu mat dëgg ak ci nangu goo xam ni mm-hmm. maam Cheikh Sidi Hadji Rawaan masul nangu lépp luy niru nirulu ak moom luy jëm ci maam seex Sidi Hadji Malick moo tax nee fi ba jóge fi sax xamuñu ko ñun nag ndax góor googu mm. tabax na fi ñetti juma tabax na ñetti juma benn paal benn faas mhm. benn lew na te lew na ji li ko indi fa mu ko def dex la ah. <laughs> xanaa looloo waral ñuy wax Maam Rawaan boroom ñetti jumaa yi waaw jumaa ndar mhm. jumaa paal mhm. jumaa faas <laughs> bu ci nekk nag tëbul tëb te wax ko am na lu mu wund ba wax ko daan na waxit ni bu leen tabax bu leen tabax lu sut sama jumaa ji kon mi nga xamal ni balaa ngeen ni toppatoo seeni kër yi comme toppatoo leen jumaa yi yàlla sama boroom ji ndax wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'a llahi dëgg la <laughs> mhm. maam Cheikh Seydil Hadji Rawhan mhm. ku dëddu woon la mhm. ci topp yàlla ku bëgg yàlla la maam Cheikh Seydi Hadji Rawhan nekkoon na ci xaal ci digganteem ak boroomam ba nu ñëw tàgge ko ab doomam ju tanee faat te yëgu ko ba ba muy génn xaal gi <laughs> kon mag ñi kenn du mhm. ñoom. dëgg la jumaay paal. Mm. la mag ña xam sax ñun xamuñu ko waaye xam nañ ni moom jumaa ji moo ko fi def. dëgg njabootam ngeen fi bàyyi it yeesal nañ fi ba ci sët yi fi nekk. Mhm. ni ziyaare xalifa maam Seex Seydi Aji Rawaan ndax mooy sunu bunt. Mhm. si la nu war sax tàmbalee. balaay dara muy Alaaji Usmaan. yàlla na ko fi te defal ko wér. di ziyaare porte parole am Alaaji mhm. Basiru Ngom mhm. euh, di ko baax mhm. di ko tedd di ko nuy sagoo it ndax yàqul dara ci image u paal ak image u maam Cheikh Seydil Hadji Rawaan mooy Alaaji Basiru Ngom kon yàlla na yàlla dolli leen wér defal ko famille maam Cheikh Seydil Hadji Rawaan gépp defal ko it famille maam ma Demba Dieye gépp te boo mhm. nee famille maam Cheikh Seydi Hadji Rawane génne ci maam ma Demba Dieye mhm. maam moo jur suma baay mhm. te awa jeey jàtti saanaan jàtti awa jeey jur alaaji rawaan saanaan jur maam ma demb bi jur suma baay te awa jeey ak saanaan a bokk ndey ak baay <laughs> macha <laughs> xaw ma dégg noonu wax jëm <laughs> am na solo de awa jeey jàtti mm. moo jur maam seex Seydil Hadji Rawaan mhm. saanaan jàtti moo jur maam maam ma Demba Jéey mhm. maam moo daan maye njabootu maam Cheikh Seydil Hadji rawxaan gu jigéen gi mhm. wàllu kër gi da ci yoroon lu bare maam ma Demba moomu moo jur sama baay maam ma Demba Jéey waajuram mu jigéen ak waajuru maam Cheikh Seydil xaaji rawxaan mi nga xam ne bi Cheikh Seydil Hadji Malick rëddee armée yi moo ci njëkk a dugg <laughs> maam see say daajara Malick rek da ba pare ni kun fi suul texe. dëgg la mooy armée yi ci mhm. yii. ne fii sunu wetu kër gii. Mhm. <laughs> est-ce muy doon lu doy mhm. moo tax sëriñ bi. ma ne la. amul ku ma ci ëppale. dëgg la <laughs> moo tax kenn du ne ma tàmbaleel wala noppit. <laughs> moo tax sëriñ bi. loole ca am nag mhm. moo waral mag ñooñee daan def fii gàmmu mhm. di ko def na mu gën a rafete mhm. mbir yi dem nag ba ñépp man ci bokk dëgg la moo tax mag ñi lu nuy liggéey ñoom wutuñu ci woon pookare barke lañ ci doon wut barke ba nag moo wër àdduna bi ndax doonatul senegal rek kay gàmm am na ñu koy def ca Italie am na ñu koy def ca Amérique am na ñu koy def ci réew yu dul jeex <laughs> waaye Serigne Cheibu mhm. lii moo waral diggante maam Cheikh Seydil Hadji malik nag mhm. ak maam Cheikh Seydi Hadji Rawaan mhm. man manula man manuma la wax ni nit man na ci wax ba wax ca ba jeexal ca ak la mu ca xam xam naa ni daal maam Cheikh Seydi Hadji Rawaan moom bàyyiwul kër paal moom ah, moom maam Rawaan bàyyiwul kër paal déedéet ay jumaa rek la fi ba waaw lu tax lu taxoon mu choisir loolu lu fi ku sant ngoom <laughs> doon na ci suuf uh-huh. yaa ngi ko doon ne ci say tooli yaay ah. maam Cheikh Seydil Hadji Rawaan mhm. néeg yim fi bàyyi xam nga lum mu ko tuddee woon mm. taaxum gan taaxum gan da ko ca woon de d'accord te terrasse la mm-hmm. moom ci suufu escalier jumaa ji mm. daanaka moo doon léppam hmm. kon mag ñi kenn du ñoom dëgg la <laughs> mm-hmm. Mm-hmm. kenn ñoom nag wax dëgg yàlla man de masuma gis ni nu kër gii kër maam Cheikh Seydi Hadji Rawaan la masuma ko gis man laa la wax <laughs> moom ndeysaan <laughs> ba muy génn àdduna ci jumaay Fass la génne àdduna d'accord est-ce que waaw. <laughs> Ah. <laughs> mu ah. nekk mu nekk mu nekk lu am solo ci diggante ki nga xam ne moom moo di euh, sunu maam Seydil Hadji Malick ak sunu mhm. maam Rawaan Ngom. Mhm. waaye ci biir euh, gàmm gi ba tey euh, gàmmu mhm. Paal. illaay gàmmu Paal maa ngi lay dégg ngay wax ni ñu ngi ko doon ci ci ndigal. ñu ngi koy jëfee ci li nga xamante ne moom moo di ndigal gu wér. gàmmu Paal naka naka lay demee fii nii ci ci dëkk bi. waaw kom ni ni gàmmu. rek. mu dëppoo ak sunna wàccee kaamilu alxuraan mm-hmm. dimbalante mm-hmm. def ay bernde mm-hmm. salaatu ala nabi yu dul jeex ak jonjaat jaami yàlla yi dunu ni <laughs> waa gàmmu gi jonjaat jaamu yàlla yi nu gën a bëgg yàlla gën a topp yàlla gëna xam yàlla waaye yitit gën a xam kuy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa surtout mm-hmm. bu nu ci jógee mm-hmm. xam ñi nu xamal sayyiduna muhammad ndax ibu mm-hmm. ki la wan yoon wi bul ko fàtte dunt ab bant la jox ba ampul la la niital dëgg la leneen lu ci nit def muy tiwawan di paal Maodo santu la ko raw santu la ko <laughs> gàmm gi moom fii sëriñ bi. Mm. mag ñi ba ñu koy def. Mm. dara lu bokk ci puukare bokk boolewuñ ko ci. ba nin fi jógee. Mm-hmm. ñi ko xamit mm-hmm. talu nu ci lu dul bu ñëwee ni cay def seen salaatu ala bi mm-hmm. woote wunu ci leneen. soppi wunu ci leneen. nirulewuñ ci leneen lu bokkul ci gàmm gi. yii daal xam naa ni man ba ma xàmmee ba léegi. lii laa xam ci gàmmu paal. macha allah. mu nekk dëgg yàlla <laughs> nekk lu am solo waaye sëriñ bi xam nga xam nga xam nga sa soppee yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci internet ci internet bi mhm. ñoom dañuy bëgg à chaque fois rek bu xew-xew yu mel ni amee mhm. nga baaxee ay mbir yoo xamante ni ñoom ci la ñu mën di sukkandiku ci la ñu mën di jàpp mhm. ci la ñu mën di effacer li nga xam moom moo di yenn bàkkaar yeeg yenn yokkute yi tey bu ñu euh, wax nga may ñu li nga xamante ne moom moo permettre à ce ñun ñi nga xam ñoom ñoo ñooy soppee di la topp yu a mën a jëfandikoo ci gàmmu gi pour mun di tuub bàkkaar yi pour mun am yokkute tey lan nga lan nga ñuy may waaw salaatu ala nabi mhm. sallallahu ala muhammad mhm. wala sallallahu ala muhammadin mhm. salaatu boo ca mën nag ndax salaatu ala nabi du xajju ci kon dafa mel ni ñaari salaatu yow du ni nga naan laa ilaha ak laa ilaha du benn di dëgg la <laughs> dose yi <laughs> du benn <laughs> waaw salaatu yooyu sëriñ bi dana guddal fan ah. dana yokk leer mm-hmm. dana ubbi wërsëg mm-hmm. dana la rassureel mm-hmm. te kenn du la xeeb heure booy yëkkati yonente bi rek te yëkkati yonente bi mooy di fàttali ko koy sayiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam di màggal koy sayiduna muhammad loolu yàlla moo waxal boppam ni woor dani benn yoon laa lay fay dëgg la. <laughs> jëf joo jëf mun la benn yoon laa lay fay. Mhm. julli ci yonent bi la la boo defee benn ma ni fukk boo nee fukk ma ni téeméer. am na fon la toll. Mhm. bu doon wax ko da ca yam. Mhm. waaye daf cee julli. dëgg la <laughs> ba cay julli loo. moo tax sëriñ bi. képp ku ca bëgg ak yokk. defal ci guddig yonent bi. lu ay salaatu ala nabi yu dul jeex. defal ci guddig yenente bi mhm. lu dul bàkk yàlla ci laa ilaha illa mhm. defal ci guddi yenente bi mhm. lu dul ay istixfaar waaye nee naa la salaatu ala nabi baas la ci guddi yenente yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax ku koy def sëñ ibu yu bari doo ko jàmbat ah kuy def salaatu yu bëri lu bëri doo ko jàmbat wallaahi salaatu ala nabi ku koy def yu bëri doo ko jàmbat nag ñun nag lii sunu problème mooy lu nu jege rek xamuñu ko mag ñi sax dañ noo jege moo tax xamuñu ko. Mhm. <laughs> léeg-léeg nit di seeti nit fu sore sore dugg avion di di lëfër lëfëreek moom. <laughs> fekkatu yoo bàyyi na fi loo xam ni su ko xamoon jarul sax pour muy dugg ak sareet. dëgg la dëgg de. moo tax sëñ Ibou. Mhm. mag ñi kenn du ñoom. Mhm. amul turug yàlla guy wër ci fii ci réew mi te doo ko gis. waaye nag ñun sunu wàllu bopp léeg-léeg loolu moo tax yow mi may déglu yow mi mm-hmm. may teewlu ci guddi yonent yàlla Muhammad mm-hmm. loo mën julli ci yonent bi julli ko soxla soo masa am mu taw a sotti mm-hmm. ñaan ko ci guddi gi danga koy gis ndax nanu bàyyi xel ni guddi gii li daan lekkante daan bañante bis bi yonent bi di ñëw ñoom ñépp ñépp ñépp danoo déggoo ba kenn ku ne naan ndax yëg nga li xew kon daa mel ni bisu mbégte la. Cheikh Seydi Hadji Maalik wax na ko. Mhm. dana bokk ànd nooral xat mi. Mhm. <laughs> yonent bi bi muy ñëw dañ doon dégg yu naan lan leen sa jaaday. Mhm. parfum am ngeen gan guy ñëw. <laughs> d'accord est-ce que. <laughs> kenn du yonent bi nag. sallallahu alayhi wa sallam moo tax du n'importe quel du n'importe qui. mooy tudd sax yonente bi salaay salaam waaye ci tuddug yonente googu mhm. ki nu ko defal mhm. yàlla na ko yàlla wërsëge pour mu xam ko ndax woyofut moo mhm. waral léeli diw nu tudde ko yonente bi mu mu yéeme lool dëgg la <laughs> mu yéeme lool waaw <laughs> ah, fekk nag oto léeg danga koy teg sax lu ma àttanut xanaa loolu la ñuy wax tur wee di si moom waaw mu yéeme lool moo tax léeg-léeg sax tur des ko nëbb <laughs> d'accord waaw sëriñ bi dafa mel ci foofu noonu est-ce que nekkoon loolu la mag ñi xam ba léeg-léeg nga dégg ci internet bi ñu lay wax ne mosu ñoo dégg paa bu tudd Mouhamad. Mm-hmm. est-ce que nekkul loolu la mag ñi xam boo taxoon ñu nëbbu tur yi. Mm-hmm. non paa yi sax daan nañu tudd Mouhamad ndax Sëriñ baa lu mu am Seydunaa Mouhamad la ko. sallallahu alayhi wa sallam Mouhamadul Fadal. Mm-hmm. <laughs> Mouhamadul Ahad. Mouhamadul mhm. Mouhamad. <laughs> am na am na solo xam nga yenn saa mu <laughs> yoo xamante ne ci ah, biir. bu dee bu dee bu dee Serigne Touba bu dee Serigne Fallou du maa ngi wax ma ko <laughs> ah Mouhamadou Lamine Baara. Mouhamad Mouhamad Mouhamad. am na. Mhm. waaye nan nga koy tuddee mbir mi dan koy doose wala dañ koy teg fan. loolay mbir mi. kon tur yi daa am ñu war a doser. sëñ am na tur yoo xam ni sax kuy zikkar. am na nooy bindoo. li ngay zikkar attanoo ko attan na la waaye attanoo ko. bi looluk sëriñ bi <laughs> ah, loolu mooy waral nag léeg yuur yëngatu. ah. Mhm. yeneen xew. Mhm. sallallahu alayhi wasallam mhm. sañ na am ay turandoo yu dul jeex ndax ku tuddee sa tur nga ko sa doom yenente bi sa mhm. yàpp yaram araam na safar d'accord waaw ah. mhm. ah, waaw ndax da mënatul tudde nit ku gën a riche ak lu gën a riche mënatul am ci àdduna <laughs> di sax ah, mu nekk mu nekk mag ñi daan nanu def nag waaye dañuy dànkantal waaw ngir gaañe di coof lenn li tey bàyyi lenn li dëgg tubaarkaal dëgg la <laughs> mu nekk lu am solo waaye sëriñ bi su ma la déggee nga wax ngëneel yi nga xam ne moom moo nekk ci guddi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam dégg la euh, yi nga xamante ne moom moo di euh, yu xar baax yu baax yi nga xamante ne moom moo nekk ci guddi gi mhm. tey bu ñu xoolee gis ñuy wax ne euh, guddi googu bokkul ci diine gi tey ban yëg-yëg nga ci am waaw bokkul ci diine ji xam nga diine ji moom mhm. ci ñun sunu diine charia mhm. la <laughs> li nu ci boole te bokk ci bare na mhm. waaye dañu lépp lu jekk mhm. doonte aada la mhm. lépp lu jekk ndax am na yoo xam ne kat buñ ko doon dindi am na yu bari yu nuy dindi sa jibu nag ah. am na nga am loo seexlu ci njaboot te sa diine nangul na la ko waaw waaye danga ko seexlu <laughs> sëriñ bi comme yaa nga wax <laughs> léeg-léeg ni lay may koo xam ni. Mhm. da koy seexlu. te pourtant sa diine xay na la ko. ah naa la. <laughs> bokk na ci diine jëm de. <laughs> boobu dégg naa ko. ah <laughs> naa boobu. Hmm? naa ko. sëriñ bi. Mhm. diine ji. bu dee dañ ci seppi gàmmu nee naa la kenn waratul duggam kenn waratul aji màkk di dugg avion di tàppe visa waratul am ndax yunti yàlla Muhammad ba mu fi nekk avion yi dematu woon. Mhm. Mm-hmm. gaal yi mm-hmm. fas yi mm-hmm. ak dox bi dëgg <laughs> ah. kon sëriñ bi loole ni wax noonu du fen yow boo juree sa doom ngént bu anniversaire jotee pour nga anniversaire nga ni loolee moom garaawut <laughs> waaye daal moom anniversaire lu yonente bi moom garaaw na foo <laughs> yow nga bëgg lu wóor ba di ko sukkandiku ci weer. Mm-hmm. Mm-hmm. <laughs> pourtant même bu gàmm sax garaawoon. Mm-hmm. ki ciy wax. ñàkk bañ a maandoom googu moo gën a garaaw li muy wax. dëgg xaw ma dégg nga wax jéem déedéet <laughs> xanaa xamoo ñàkk bañ a maandu àtti na téeméeri yi téeméeri yar. est-ce que do xam nga ko. déedéet téeméeri yar. ah waaw <laughs> ñàkk bañ a maandu àtte na téeméeri yar. wëral ma ba xam gàmm fan la àtte téeméeri yar. boo boobu ah gàmm dégguma ko fenn. <laughs> est-ce dégg nga wax ji <laughs> ñàkk bañ maandu. Mhm. àtte téeméeri ya sëñ Ibo. Mhm. yàlla nee na boo fekkee ñaar ñuy njaaloo. Mhm. <laughs> yow mi ko fekk yow kese. sañoo ko wax déggoo wax ji de. Ah. boo ko waxee dóor na la téeméeri yar pour gaañi dégg ma. loolu lan la ñàkk bañ maandu. waaw la ñàkk bañ a maandu la. ayoon na dem looloo gën a garaaw nag gàmmu xam nga gàmmu moom wëral ba mu daj. bii laa maye tey rek na ko gaa njàngat. mais tey tey boo amoon loo leen di digal ñoom ñi nga xam ne ñu ngi ci diine ñoom ñi nga xam ne uh, gëmuñ li nga xamante ne moom moo di uh, moom moo di moom moo di li nga xam ne moom muy suuf soufisme. tey boo amoon loolu tey ma wax la li gën a dee bu nu gëmul woon gàmmu sax ba dem ci busri yu dañuy gëm gàmmu muhammadul busri yu ah Mouhamadou Boussir am na fu mu wax ci gàmmu ndax waaw ndax xam dugg foofu waaw waaw xam lan moo tax mhm. dafa yoroon góom bu ko jaaxal yoroon ah. tawat ju ko jaaxal ah moom Boussirou waaw moom mhm. tëbul tëb nii rek di wax ci yeneen tëbi de dëkk la tëbul tëb nii rek nii naa nale de mhm. <laughs> waaw rasulillahi moo ko faj sëriñ bi ci ci naka <laughs> waaw moo tax nag la mu ko faje ku ci dem faju ji am ci lëng ca bëgg téeréem boobu. Mhm. soo ci wutee wërsëg am ko. mooy burde bii nii jàng. <laughs> ah wow. moo tax léeg-léeg nga dégg yaa rabbi salli alal muxtaari min mudarin walan bi ajami mhm. rusli ma sukkiru mhm. wa salli rabbi ala hadi wa shiati wa man li tey diin xan nasiro wa jaahadu maahu fillahi wajtahadu <laughs> moo tax ma la mag ñi kenn du ñoom sëriñ bi Muhammadul Busi laa wax rek li ko yonente bi defal ba mu koy wax <laughs> ba di ko wax rek. Mhm. wallaahi waroon waroon ñun ñun ñun tax na mhm. ñun rek nu war a gëm gàmm. Mhm. buñ ci sonn nag. ndax ñi ay tere gàmm. li waa gàmmu am amagunu ko wooteegunu ba la dem Touba dem Tiwaawan am ci gàmm kon bul ñu sonal seen bopp ci lool. dëgg sëriñ bi. gis nga ngont ak avion yemul ak ngontu poso mbaar. ak dëgg dëgg la de. voilà <laughs> tooñu ma kenn. <laughs> mu nekk lu am solo mu nekk lu am solo comme fa nga yem sëriñ bi dañuy. ku ci yor say lexit ëffal ba mu air bi jàll rek <laughs> doo ma ko teree wax doo ma teree gëm ma. mu nekk lu am solo waaye boo sànq ci sa biir wax yaa ngi tudd li nga xamante ne moom moo di téere burda. dafa doy waar waaw te ñu ni Seydil Hadji burda day ma maye doom. moom burda burda day ubbi wërsëg. Mm-hmm. waaw wow. <laughs> day ubbi wërsëg. burda day faj ansim. moom burda. billahi. est-ce budda day dindi tànk yu ruux budda day may jëkkër budda day ubbi wërsëg wu doy waar sëriñ baa li nga wax bu gaay bu ñu xëyee duñ jeexal téere burdi yi bokk kay man kay sëriñ bi par bunta bu ne nag sax looloo ci gën a garaaw par bunt bu ne nag ah, looloo gën a garaawal <laughs> parce que léeg ngay dégg ñooy dañuy jàng fukki buntu noppalu benn gàmm kay lu garaaw laa la wax nii mhm. li ma lay wax kay dafa leer bind takk naan moom <laughs> est <laughs> ah, moo tax Mhm. man gisuma lu barkeelul ci yenente bi mhm. ki bëgg yenente bi sax lu mu laal loolu barkeel mhm. moo tax mënunu fexe ci àdduna mukk ba du nu gëm Seydunaa Muhammad na coow li di bare rek billaahi wal kitaab mënunu fexe ba ci àdduna mukk li nu yéene sunu xol bii du nu ko defal yenente bi dañu koy anniversaire billaahi <laughs> waaw waaw <laughs> munu ko demoon ba yorunu luñ ko defee nu summi sunu yére yi def yaramu neen dem jaayi ko te def ko. est kon kay loolu xa xalaatunu ko ba ci àdduna. Mhm. bul ci loolu. Mhm. <laughs> dafa am leneen lu nu waroon wax ba du tal temps wu gàmm. yàmba bi ci réew mi. Mhm. yow mi toog di diingat gàmm. defal ay rakkaa yu jeex. baa nga écoupé ci yàmbaa ji ba mu leer ni la tëkk dëkk bi xeeñatul loolu mhm. ngay soogay jàll ci gàmmu ndax gàmmu amul odooru yàmbaa amul odooru ndorog dëkk la <laughs> waaw nan ngay bàyyee nag gejj gi di wax ci ndawal li waaw waaw problème la moom lu wax ji lépp lool la dëgg la de <laughs> dëgg <laughs> bàyyi fukki kilo di wax ci genn wàll liibar te genn wàll liibar gi ngay wax yow sëriñ bi mhm. soo ko xamoon xam ni du leen man ba léegi comprendre ma loolu. Mhm. guddi gi yonent bi. Mm. nga naan bi daal ah. doona waar de. <laughs> comprendre <laughs> comprendre moo tax sëriñ bi yooyu. Mhm. dama jàpp ni rek nit a nga koy wute bës rek. te ko ah. fenn nag. dëgg la. boo doon topp ci yonent bi. Mhm. topp ci yonent bi. topp ci yonent am na lu bare lu bare lu bare. <laughs> loolu la rek. <laughs> am na solo de. waaye waaye dafa mel ni ngëneel li nga wax ni moom moo nekk ci li nga xam ne moom moo di téere burde bi. dafa doy waar est-ce que nekku ne sunu maam moo loolu la xam boo tax na mu ne dañu koy jàng saa yu bisu bisu bisu bisu gàmmu di di teeru si ndax moom itam dafa mel ni li mu bind ci gàmmu bari na trop de. noo maam Cheikh Sidil Hadji Malick sax nee na nu téereem bi xilaasam bi bi mu koy bind sax. bu di mhm. neexatul. dëgg la. <laughs> tey siir bi mu koy bind. Mhm. dafa pare rek ni ko am nga kan ni ko kan la mu ni sëñ Babacar si dugg si na àdduna mm-hmm. <laughs> tey siir wasilatul muna mm-hmm. moom lay waxe habdun salilul faqirul xaasihun wa jëlilu sujosihin asifun yallahu yallahu mm. naan ilayka madal yada rajaa am maxfiratin habli mushahamatan yallahu yallahu mm-hmm. si lay waxe tama wajal bahru bahru sën bi yaa si lay bàkke yàlla mhm. si lay tudde yàlla si la mhm. turu yàlla yépp a ne mhm. moo tax ngay dégg yallaahu rahmaanu yaa rahimu yaa maalikul xuduusu yaa muuminun salaamu yallaahu yaa mutakabbiru yaa jabbaaru xaaliqu yaa muhayminul baariul xafaaru yallaahu mu ne hasiisu xahaaru waali musawwiru yaa wahaabu rasaaxu ya yii yëpp turu yàlla <laughs> al halimu yaa xaabitul baashitu yaa hakamun mohiisu yaa xaabidu mu musilu yahadlu yaa sami waasi basiir bàyyi si àlla tiwel kan mooy mag ñi <laughs> moo tax dafa pare rek mhm. yàlla ni ko gan gi yegg si na xoolal sëriñ Babacar si ni mu mel mhm. xoolal ni mu doy waare mhm. xoolal ni mu yéeme xoolal ni mu teddee moo tax mag ñi ku leen bàyyiloo yonente bi xalaatunu ko ci àdduna dëgg <laughs> sëriñ Cheikh Al Maktoum rek doyoon na sëkk bu dee star la ñuy wut ci Tiwaawan baa ci àdduna sëriñ Cheikh waxuma sëñ Babacar <laughs> waxuma sëñ Mansour bi waroon daara ji <laughs> waxuma mag ñi de. Mhm. sët yi rek. Mhm. waa léegi sëriñ bi. Mhm. <laughs> waaw kenn dana bàyyi lu la jëkk. déedéet man de du ma ko def. su àndul woon nag yàlla ñàkk nan ko bu yàgg. li fi xew yëpp. moo tax Cheikh Sidi Hadji Malick bind téere bu naan xilaas zahab wax ci lu doy waar. waaw lu doy waar maa mhm. ngi dinku aminatu bintu waxabin mhm. ibnu xabdi mhm. ibnu kilaab ibnu ibnu ibnu ibnu te maami yonente yooyu yëpp boo ko xamee dañu sa yàpp yaram araam na safar ci gàttal dëgg la baykat ba naan dabbatun umu xàqul umu dabbata lum na haula dem <laughs> ninu ni téere boobu rek ku ko fanaan noo yaag sayyiduna Muhammad yéen a bokk fanaan téere ba rek ibu hmm. bu kenn sonal sa bopp ñu hmm. mag ñi lañu gëm ci gëm gi gëm yàlla hmm. <laughs> dëgg la ci moom <laughs> ndax ñoonu xamal kuy yonent bi yow li ngay toog di ko diingat gàmm waxoon nu kuy yonent bi moo nu ko gënal dëgg la lanu gën a soxla <laughs> fan mooy metti fexe ba raay lu koy seral daal moo nu gënal lii rekk fi ne moo tax sëriñ bi mhm. ca sidaaji Maalik bind ci téere yu dul jeex mhm. wax ci lu dul jeex mhm. def ci lu dul jeex ba xamal ni kuy sallallahu alayhi wa sallam te linu lin ci bind ñun jàngunu xaaj xaajaatam xaajatatam <laughs> mu nekk lu am solo waaye sëriñ bi da ngaa tudd léegi benn téere bu ñuy wax wasilatul muna mhm. ci biir waay ci biir ci biir wasilatul muna ñu dégg ci moro di wax rabbun tabaarak aw rabbun taxa dasa mhm. aw rabbun taxa laahu la yàllaahu mhm. sëriñ bi dañu ñamal ci baat yooyu noonu rek bu ko defee ñu jéem jotaay waaw xam doy waar <laughs> dafa yéem te pourtant téere boobu lu yomb la waaye la ca la ca ne yàlla na ni ni kenn xamuloon ci la waxe mhm. rabbun tabaarak mhm. aw rabbun taxaddas mhm. aw rabbun taala <laughs> ci la waxe abdun salilul faqiirul xaasihun wa jëlil dafa bàkk lépp yàlla ba pare daa toroxlu ci yàlla nag di jaam bulay lay ñaan ku torox ak kuy toroxlu <laughs> loolu rekk sëriñ bi waroon na tax nu topp mag ñi faa mag ñi. dëgg la. <laughs> gisuñu fu nu yëkkatee seen bopp ci àdduna. Mm-hmm. téere boobu. Mm-hmm. am na noo koy jànge xooj ko naan. Mm-hmm. mu la neexee bindal ay at doo am jàngoro ju lay jaaxal. waaw wow. am na noo koy jànge boole kook xeerum tiim xooj ko. jël juróom ñaari xeeru ngeer. jël juróom ñaari xobi déem mhm. <laughs> jël benn xobu waaye garab ga dana ñëwaat sama xel mi mhm. ñati ñaati kii la nga def ko ci sëriñ bi mhm. hmm? yow mi yor cancer ak foo ko mën a am yow mi yor ulcère ak foo ko mën a am sëriñ bi nga sangu ci naan ci soo xëyee da ngay mel ni ni li la doon metti boo gëmul ne dañ na it dootoo ko yëgati na nga ko doon yëge billaahi da lay bàyyi bii ma lay wax. booy laaj date de naissance su Serigne Babacar si demal nga seeti téere bi. dëgg mooy date de naissance am. Mhm. est-ce que <laughs> ko dafa mel ni téere yi moom mooy. tey juddu Serigne Babacar mhm. boo koy laajte. Mhm. demal foofu. dëgg la. <laughs> moo <laughs> waaw téere la bu doy waar. waaye ñun sax. dañu koy xool nii rek ah. dañuy barkeelu rek. waaw <laughs> waaye boo xoolee air bi rek. Mhm. ci ñi koy jàng. Mhm. dangay xam ni dafa yéeme. Mhm. am ñoo xam ni seeni bët dafa muuru tanu man ko lool. waaye du sax man gi kese waaye dañu koy wax te barke ànd ci. muy téere bu doy waar. dëgg la macha man sama baay. daawul toog genn ak fajar te jàngu ko. ci li ma xàmmee man. genn fajar daaw ko toog te jàngu. Mhm. c'est ça. waaw ah, mu doy waar sax. ndeysaan mu nekk mu nekk mhm. lu am solo waaye tam yem ak fi nga xamante ne fa la ñu war a yëgatee jotaay bi ndax fu mu mhm. toll ñu ñëw pour barkeeloo ak yow la sargal la waaye itam euh, kontaan bu baax baax ci dalal bi nga xam ne moom nga dalal tey euh, télé bi di Amsa TV fii ci biir Paal ñu am mbégte loolu itam kontaan bu baax a baax ci li xam ne aussi noonu nga noonu nga dalalee équipe bu Amsa TV yëpp fii biir Paal loolu moom mbégte lool lañ ci am sëriñ bi nag waaw <laughs> Amsa TV. Mhm. dafa rëy ci ñun. Mhm. ndax sëtu alaaji rawaan moo ko moom. Mhm. ndax sunu waajur yi leen ko dippee. kon yéen kenn amul seen fay ci àdduna. ndax fonk ngeen lépp. sëñ Ibou beneen bi si tegu mooy. dañuy wax ni. lu bare lu barkeel moo ko gën. dëgg la gis nga gàmm yii mhm. lii dénkaane yow miy dem Tiwaawan mhm. yow miy dem Kawlax mhm. yow miy dem Paal dem ba gàmm di fa poosu nit jël alalam di sàccuk téléphone di sàcc ceenu ooruk jaamur wala de xaar ku teg xosetam nga rocc yaa ngi alak sa bopp Mhm. dem ba gàmmu di doxaananti. Mm. bëgg mu leer nag moo tax ba ma jaar ci digg bi. sëñ bi foofu kay leeral ko. dem ba gàmm di rocci ba mu weex taal la naan gàmm gi la. Mhm. sa bopp ngay gàmmul waaye du gàmm ko. dëgg la de. moo waral nag. Mm. léeg-léeg nit def ko jaare fa lamb. na xamul lan moo tax. Mhm. fa mu ko defee moo baaxut. ba mu waree rocci daa yàggoon du léegi ndegam day rocci te yàlla santu rocci. <laughs> xaw ma di nga wax jëm de. dégg naa <laughs> li dàq ci àdduna ci gàmm mooy mm. ak ci lépp béréb bu nuy sunu borom di wootee mm-hmm. na fa demee ak yee sell ak yéene rek dëgg la ba pare mm-hmm. su dee dem sell gi ak yéene ci mm-hmm. yàlla sama borom dalay may ndax sens la boo xam ni fekke nga ko ren waaye est-ce que déwoon lu yàlla sama borom di dogal dëgg la <laughs> ak fan la lay fekk kon sens bi nga ci am téye ko xam ko sàmm ko topp ko boo ko defee rek am li nga bëgg mhm. ndaxte mhm. li ngay dem di ko wuti mhm. da nga jàpp ni am na loo soxlawaat loo war a renforcer waat ak loo war a toppaat ci sa bopp ngir gën a bëgg yonente bi waaye ngir gën a yor jukki yonente bi moo waral ba nga jug dem gàmm dëgg la <laughs> te jukki yooyu nag jukki yi ma wax bokk ci jaxase ay nit. Mhm. ci gàmm ta nga ni gàmm. Mhm. siis ci biir gàmm. ta nga ni da ngay gàmm. Mhm. <laughs> di ñooy jox ak ñoo dul jox ta nga ni da ngay gàmm. di ay VIP ci biir gàmm tanga nga ni da ngay gàmm. gàmm woo. <laughs> yooyu caaxaan la. ci fu muy man di xewe nag. <laughs> kon dafa mel ni gàmmu gi Seydina Muhammad mooy VIP bi. kese ci àdduna sëriñ bi. la keneen ku manti doon gëmal ni ko ni ñoo ci bokk yam kepp dëgg la nu yamale ñépp mm-hmm. di togg na mu gën a neexe mm-hmm. te bañ jël ganaar yu baax yi di ko jox ña nga xam ni boo moytuwul sax amunu mm-hmm. yiwu gàmm amu amunu yoolu gàmm dëgg ci lépp nag ndax léeg-léeg day xew nu xeeb boroom mbubb yu euh, woyof <laughs> du nu gis pom du nu gis babanaana dëgg la de. <laughs> fekk ñu am pomme am banaan di leen koy jox. Uh-huh. amul njariñ ci àdduna. dëgg li ngay def te yàlla tax. na ci ñëpp a yam. kese ci àdduna. ñëpp a yamunu nag waaye dama ni. li ngay def te yàlla tax na ci ñëpp yam. waaye sëñ Ibou. Uh-huh. kontaan rek la nu am. Uh-huh. ci teew gi. ak di ñaanal xalifa maam Cheikh Seydi Hadji yàlla sama boroom gëna ko fi yàggal amiin gàmm gi bañ a doon sunu mujj gàmm amiin nu gën ci ama wér gën ci am sutura gën ci am yokkute yéen Amsa TV nag amunu seen fay mhm. amunu ko mhm. dëgg yàlla ndaxte mhm. gindi ngeen ba tàyyi jaamu yàlla boo xam ni bu leen diglul woon ne ci leneen baa defi leneen baa dugg ci yeneen yàlla sama borom suturaal loolu mhm. yii di def nii lu temps xat-xat-xat mhm. ñi nuy bàyyi xel te mhm. jàpp ni nu ñoom bu nu déggee jàpp ni mel ni ni sax gàmm nanu moo waral lii nuy doxale nii moo waral sëñ Ibou gàmm daal guddi yonent bi la wax ju rafet wax ju baax tagg yonent bi def ay bernde nag am yaatu goo xam ni ak njottalu rafet te maandu ci yu bëree bëri ku koy def sëñ bu loo bëgg am am ko. Mhm. ci barke yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam. macha allah kontaan nañu a baax sëriñ bi mhm. yooyu tamit ci dara la fii xam naa eh, ci kanam yeneen jotaay. walaay ndeysaan gën a waxtaanee gi gën a waxtaanee sunu maam Rawaan Ngom. waaye itam gën a waxtaanee fi nga xamante ne moom moo di dëkk bu mag bi. dëkk bu mhm. sell bi di fi nga xam bu baax a baax macha allah kontaan nañu kon bokk Amsa TV yéen itam ñu ngi leen wax rek ngeen bëgg dañu bàyyi xel fii ci site bi saa su rek nañu faral dugal ay ñu ngi koy defee fii bu paal bi euh, dara du leen ci rëcc incha allah ak seen télé bi di Amsa TV jërë ngeen jëf xam naa kon euh, beneen yoon ci beneen jotaay incha allah fii ci biir paal. waaw ci barke guddi gi. Mhm. ci barke borom guddi gi. Mhm. daan leen ci may sax après ay secret yu bare bare yoo mhm. xam ni. tubaarkalla tubaarkalla ci barkeen Tiyaan moom. incha allah salaamaaleykum wa rahmatulah.